ngeen internet de à travers partout dans le monde ni choisir la chaîne leader site de mag bi wax Galsen People comme ni ko faral di su nek ñew set ci nga xamantene machallah borom la xam à travers Galsen People bi nga xamantene mëna euh, à travers aussi euh, ñaan yalla bi nga mi ngi koy def di résultats yu ama solo wax Cheikh Cheikh Moussa Ka tey ñu invité ko nag bëgg am ak mooy waxtaan waxtaan yu am solo mu war a wax euh, si ay révélation yu am solo yi nga xamante ne mën naa ne làmb ji dina si laal dina laal aussi combat bi nga xamante ne moo war a si digganteeg Sa Thiès ak Eumeu Sène dina waxtaan aussi si digganteeg problème yi nga xamante ne moom lay dégg fan yii digganteeg euh, euh, ak Papa Boy Djiné ak sëriñ bi nga xam ne moom la ñu wax nii moo yàq kii di Papa Boy Djiné war nañu waxtaan aussi si politique président Diomaye fay président Ousmane Sonko dina wax ay mbir yi nga xamante ne sénégalais dina doy waar daal si ñoom cheikh bi bala ñu dugg ci programme bi dañ lay dal di bàyyi nga nuyu mbokk internet yi lay setaan rabbi ishrah li sadri waysir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli ya man bi am daahi taatil busharu ya Moustapha ya rasulullah ya basharu Cheikh Moussa ñu lay nuyu bu baax a baax a baax di la ziar nuyu waa Galsen People suñu site suñu steen suñu télé di leen dalal suñu jotaay bi nga xam ne Mm-hmm. incha allahu rabbi dinañ fi leeral mbir yu bëree bëri bëri mm-hmm. kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm si suñu mm-hmm. jotaay bi ak seet si bi ñu seet si di la wax ahlan wa sahlan soyez bienvenue bismillah macha allah euh, macha allah Cheikh Ka kàddu gi am na solo bu baax a baax a baax Cheikh Moussa Ka euh, ëmpal ne ñëpp xam nañ ne yaa ngi jàppale euh, sénégalais yu bëri si ñi nga xamante ne ñu ngi teg seen projet di ragal mu daanu ñi nga xamante dañoo bëgg ku leen aaral seen mbir maanaam nga ubbi entreprise bu bees nga ubbi boutique bu bees bëgg taf-taf sénégalais yi dégg la bëri na ay entreprise yoo xamante ne macha allah yaa ngi liggéey ak ñoom eh, bi ba sa kër nga am si gi nga xamante ne eh, yaa sos dara bëgg mu naaw bëgg kenn bañ ko yàq bëgg mu yëkkatiku fooy jaar ak moom waaw Cheikh Moussa da nga wax am solo mhm. eh, parce que nit ki ku yokkul yaa ngi wàññeeku mhm. nit ki ñaar yooyu rek lay toxe da ngay yokk mhm. wala nga wàññi wala ngay wàññeeku ba tax na boo yoree mbir te mu leer na la yow lii sa mbiri si la nekk mhm. wala sa mbiri si la war a jaar mhm. loolu dalaa war a jaral lu ne mhm. dalaa war a jaral ne boo nekkee si mbir mu leer na lii da nga cee war a yëkkatiku da nga cee war a am dara sa bunt la da nga cee war a da nga war a yëkkatiku moo xam nga nekk si yoonu tukki moo xam nga yor place moo xam ngay mbëru làmb parce que sam saa nit ki dafa war a waaj war a waajal boppam parce que ko gis ku ne suñu borom da ko waajal si ñewam hmm. ci wér yim yim umb yiñ ko umb hmm. bim juddo lim def ci ay fan programme ba am ba toll yeen âge kon lolu hmm. nit ki da nga war waajal sa bop ñi nga xamne nak dañuy débiti mbir yor ko lu melne walu place wala nek ci yeen bëreub liggéey kay bëgg ci ko dafa am lu ñuy wax wa rafa'nahu makanan aliyan boo ko adadee da lay jox 335 335 nga japp 313 moo jàpp jeysun mm-hmm. mm-hmm. waaw nga japp 55 mo japp ya mujibu yow yalla yalla nak ma nangul li may ñaan hmm motax lolu place boko sampé hmm sa boy tukki nga débuté ko sey mbir mm-hmm. yoy day jëm kaw rek hmm légui ñi nga xamné Cheikh Moussa dañuy nekk ci mbir bëgg ci yëkëti ko way hmm wala mbir mu bees dañ la fay liggéey lo xamné ñu ngi koy jaaré ci turu yalla bu ñuy wax ya yaa hmm Mm-hmm. yow yàlla yàlla nga ma tàggatal nangam ak nangam yàlla nga tàggatal diw ak diw. Mm-hmm. kooku bis boo ko fa jaaree. Mm-hmm. lépp loo bëgg ci mbir moom danga koy am. moo tax ñu ngi siy liggéeyal ñoo xam ne da ngay gis koo xam ne tey day débuté ci place boo xam ne cantine la waaye bu ñu ko jàppee. defal ko li ñu koy defar. da ngay jékki mu yor ay magasin ay magasin moo tax maanaam. nit ku ne dafa am yoonam. xam nga ne xel fu ko neex lay aw Cheikh Moussa. waaye mhm. nit saa boo jógee si yoon rek ngay aw. Mhm. loo bëgg dem bëgg dem. Mhm. boo jugee si yoon ngay am. waaye nit. dafa am yoon. moo tax boo bëggee mbir yegg ci te yegg fa ni nga si bëggee yegg. ak ni nga fa bëggee yeggee dangay aw ci yoon. dëgg la. gis nga yëkkati ko ak teraanga seex musa dañ koy dañ koy fàggu. dëgg la dañ koy fàggu. am na solo. am na solo bu baax sëñ bi euh, sëñ bi euh, Bayre place Bayre place parce que yenn saa yi ma gis si TikTok bi euh, place yi des fois dañ fay suul ay bagages loolu lu wér la. waaw. Hum. Bayre place am na. Hum. Bayre ko débuté si benn. dem ci hum. cent wala ci deux cent am na. loolu am na de waaye liggéeyam liggéey bu sérieux liggéey bu jaar yoon la. ndax xam nga ne kiy defaral nit yenn façon liggéey yi. jël ay téléphone di ko filmer di ko def. Mhm. ndax xam ne am na liggéey yoo xam ne du bët yu ne ñëw si tegu. dëgg la kon loolu dese naa wir. la. loolu mën naa ne li ñuy tuddee échantillon la waaye du liggéey wóor. liggéey bi dëgg la. <laughs> loolu la ñuy tuddee échantillon loolu ñu leen defal noonu du luy xam ne day jàpp. Mhm. wala luy des la. Mhm. loolu dañ koy liggéey liggéey bu sérieux. liggéey boo xam ne place bi bis bi nga ko jël. waaw nga xam ko. xam quartier bi ngay liggéeyee. koñ bi ngay liggéeyee nu mu toll. Mhm. nga adat ko xam ni mu toll nga mën ko poser. Mhm. xam yow nan nga toll lan mooy sa biddéew. Mhm. gis nga loolu tey. boo ko sampee place boobu wala nga jëmbat ko fa. day mel ne lu téeméeri nit di tee di gësam. Hmm? waaw foo jaar ñëppay xam yëngu-yëngu bi. allahu akbar. Hmm, teraanga. ak yëkkatikuwaay Cheikh Moussa dañuy rayanteeg moom. faaw nit ki moom mën ko am. léegi am na lu ñuy wax mhm. nasrun minallaahi wa fattun xarib mhm. loolu bu fekkee da nga débuté ñu la koy defal mhm. maanaam ay nit ñu am njëriñ ñun ñu am teraanga rek ñooy jënd sew ñoo lay fréquenté loolu faaw ñu xam ko dëgg la léeg-léeg nga gis place yoo xam da nga fay liggéey mbooloo waaye mbooloo yi lay dikkal daanaka dañ lay yokk coono wala duñ la jëriñ dara waaye mbooloo moo xam ne saa buñ ñëwee dañ lay yokk teraanga dañ lay yokk ba pare dañuy dañuy ñëw dañuy indaale. Hmm. loolu moo gën a am solo. waaye du rek place dama bëgg ubbeeku rek ñëw gas jël sa benn zuy na rek def ko. Hmm. loolu dafa laaj liggéey bu sérieux. Hmm. liggéey bu jaar yoon. loolu tamit am na ñoo xam ne buñ buñ leen ko liggéeyee boo ko liggéeyee tey ci mois de janvier wala mois de mais wala avril bara avril bee ñëwaat kooku ay place yi place mën nga ko assuré kon bërëb boo ko yoree. li gën a gaaw li gën a baax ci bërëb bi pour mu jëm kaw. Hmm. nga suuxat ko ba nga xam ne loolu da si mën a yëkkatiku ba am si lu bëree bëri bëri. Hmm. kon loolu dafa am solo loo xam ne ci place yi la. Hmm, dafa am solo ci bërëbu liggéeykaay. dafa am solo tamit nga nekk si entreprise wala nga nekk stagiaire. nga xam ne dangay ngay bokk si ñi ñuy wax. wa saabixuuna saabixuuna ulaayka al muxarraboon. saa bu ñuy njëkkante di jël wala bu ñuy njëkkante di dem. yow da bokk si ñu ñuy jël. Mm-hmm. da ngay bokk si ñi ñuy yittewoo da ngay bokk si ñoo xam ne. Mm-hmm. kiy jël bu fekkee jëlul rek du am jàmm. am na solo macha allah euh, am na solo Cheikh Moussa Ka kàddu gi am na solo bu baax a baax a baax. Mm-hmm. ñu jàll suñu beneen question rek nit ki nga bëgg euh, ki nit ki nga xam ne dafa bëgg am am bu gaaw maanaam. am am bu gaaw daal taf taf nga am xaalis bu bëri. ubbeeku si baatin ak zaahir. nu muy def. waaw. Cheikh Moussa loolu tamit dafa nekk lu am solo parce que jamono ji euh, nekk na jamono joo xam ne. ñëpp dañoo war di liggéey li ñuy wax nasrun minallahi wa fatun xarib mhm. ubbeeku bu gaaw bu mhm. jógee ci yàlla mhm. ak ndimbal bu gaaw macha parce que dangay nekk da nga dafa am ñoo xam ne benn jëmm lañ mais ay junni la ñuy wecceeku Cheikh Moussa ñooñu faaw loolu rek moo leen mën a dimbali dangay ngay xool tey nga nekk ci àll bàyyi fukki nit wala ñaar fukki nit ginnaaw ñu lay bàyyi xel te boo xëyee tey bala nga xeet kenn xamul kañ la loolu am na. loolu tamit da ngay nekk nit koo xam ne. Mhm. Euh, day mel ne yow maanaam àdduna day bëreeg yow. Mhm. boo daanoo rek fukki nit daanu. Mhm. boo nekkee kenn xam ne da tukki. te lu bëri yaakaar la te mu leer ne yow ñii ñëpp sa loxo la war a jaaree. da nga li da nga liggéey li ñuy wax. nasrun minallaahi wa fatun xarib te innaa fatahnaa laka fatan mubinan loolu boo ko fa jaaralee nit ki bu fekkoon fu tukki tey nekk ci léewu léewu tugal yi. Mhm. yàlla da ko ubbi ubbi bu gaaw. Mhm. yàlla dajale ak ay boroomi barke. Mhm. ay boroomi teraanga nga am teraanga ñibbisi. tukki tamit baax na loolu waaye tukki indaale teraanga dafa baax. dëgg la waaye fukki nit di la yaakaar. téeméer nit di la yaakaar nga nekk si benn affaire chaque jour di ci gam-gamlee. te yàgg-yàgg xam nga ne dëkk bi ak loo fi mënti def. teraanga moo la fi indi. Mm-hmm. kon lan moo la teree nga liggéey am ubbeeku bu gaaw am sa alal yàlla defal la ubbeeku nga ci ay multimilliardaire wala millionnaire dem ñibbi. Mm-hmm. ak loo fa mënti def ñu ngi lay xaar. kon loolu tamit ñi nga xam ne dañoo génn wala ñi nga xam ne dañoo nekk ci business yoo xam dañ see bëgg ubbeeku bu gaaw. Mm-hmm. foofu lañ leen di jaarale. nga xam ne tey day ànd ak kaaraange boo xam ne képp ku la xuri adun ñëpp a koy xuri. képp ku la laa léeg-léeg nga gis am na jamono jii tey gis nga nit ñoo xam ne tey képp ku leen wax dala war nga saaga leen téeméeri nit saaga la. yàlla loolu am na. kon loolu tamit hmm. dafa am. Hmm. loolu ba tey dafa am ci koo xam ne saa bu xasee ba jox la yow adduna bépp ñoo lay jox. Hmm? gis nga teraanga Cheikh Moussa dañ koy fàggu. gis nga euh, radiyallahu anhu. Euh, Serigne Mansour si. daa am bis kenn ci mag ñi. ci mhm. magu alxaaji maar yi nekku nañ ànd. Mhm. mu sol ay forogam rek ànd ak moom dem. Mhm. mu ànd ak moom si vase bu nekk fay at. kookoo ko seetlu benn yére la am. waaye ñaan gi mu ko ñaanal. ba ne ko seetlu naa dama la nañ dem rek nga ñëw ànd ak man. mu ñaanal ko fexe ba ñaan ko ñaan ne ko gis nga ni nga àndeek man nii rafet. froissé. jamono dina ñëw. saa boo soloo saa boo génnee. Mm-hmm. saa boo waxee. Mm-hmm. képp ku wax dana noppi saaboo boo soloo képp ku solo dootul feeñ. loolu maanaam euh, sëñ Mansour si looloo waroon. mu doon mm-hmm. soloo ni mu doon soloo nga xam ne saa bu soloon génn. loo mënti indi da nga koy fàtte. ci yàlla saa doon wax xam-xam yow loo jàngoon da koy fàtte. moo tax gis nga ubbeeku ak ñaan ak u am am bu gaaw dañ koy fàggu. alal di ko dikkee fu ne yëre di ko dikkee fu ne nga xam ne tey saa xalaatee ne sëñ Mansour mu ngi si jotaay yow moom da ngay def say forog rek dem. ndax xam nga ne. Sabu bu génnee yow loo mënti génnoon day day naax saay mhm. kon teranga aral Cheikh Moussa dañ koy fagu ci lu gaaw mhm. xolal yoon bi mu aw am aduna am ci lu gaaw donte la njaboot alhaj malik la mhm. kon lol timit faaw ñu bayiko xel bu baax baax macha allah euh, macha allah Cheikh Moussa Ka kaddu gi amna solo bu baax baax baax baax ñu jall suñu benen question rek muy walum karange bis na ne jamono ji yaq yaq yi bari na yaqante bi bari na bi bari na euh, lan nga mëna am lo xamantene mo lay ar ba nit du la mënal dara waaw am Moussa li may wax rek képp kuy dox ci kaw suuf mhm. ci dënn bii mhm. da ngaa war a wut li jiitu kaaraange mhm. bala ngay bala ngay wax am am sax da ngaa war a të te yàlla të waaw da ngaa war a nit dafa war a man sama bopp laa ko njëkkee kaaraange man yi may defal nit saa bi saa boo ko defalee nit képp ku la laal képp ku la laal wala mu wax wala mu jógal la maanaam kooku maanaam la problème di nga dem ba melam. bàmmeelam hmm? waaw man loolu dama koy njëkkee sama bop. allahu akbar waaw sama koy njëkkee sama bopp. Mhm. waaw. Mhm. man dama koo njëkkee sama bopp képp koo xam ne. Mhm. jóg na pour mu ne dalay jógal. wala dalay bëccëngal. wala dalay dalay dalay mokke. bëccëngal mooy koo xam ne saa boo dara da koy bëgg daanal. dalay mokke koo xam ne saa boo ne dalay bëgg maanaam wala ku lay nit ku lay saaga sax wala mu lay manqué de respect. balaa saa la koy def ba nga xam ko. kooku da nga dem ba tiim bàmmeelam. kon nit ñi da nit da war a tëj sa bopp. Mhm. def kaaraange yoo xam ne. Mhm. maanaam nit ki ak lu mu la mënti liggéey ak lu mu la mënti def. Mhm. loolu ci moom lay dellu. ndaxte bëri na fi ñoo xam ne dañ naan dañ leen a yàq mënuñoo am dara. am na koo xam ne bi muy doog a gëm sëriñ wala bi muy dem ci ñaan. gëmul waaye bi mu dem gëmul woon ñaan gëmul dara waaye bi mu demee ba Europe. ñu liggéey ko yàq ko nga xam ne bés bu demee par liggéey kaayam day lox. bu fa nekkee day tiit ci lay doog ma ne ko nag yàlla di la may teraanga nga yor ñaar fukki junni wala fukki junni mënoo ko sa bopp mhm. ama ne kooku suñu borom du la dénk ay milliards mhm. nit ki balaa suñu borom du dénk ay milliards faa nga mhm. yor junni nga mën nga mën ko def sa bopp moo tax suñu borom ne balil insaanu ala nafsihi basiran loolu faaw ñu xam ko léegi moo tax kaaraange ma ciy liggéeyal ba mu la xasee ba liggéeyal fu la neex demal ku la neex waxal ak moom bu la nit tëkkoo demal reer ba suur nga tëdd nelaw. Hmm? da bu bu fekkee dafa repp day faatu. bu fekkee nit koo xam ne nag yàlla am na ñaan wala am na ñaan waay dana ñëw ba si tànk ne la ma baal ma ak jéggal ma. la ilaha illallah. Hmm. moo tax nit ki boo nekkee yaakaar. Hmm. da ngaa war a jug sa bopp ba të def li maanaam liggéey yi ma yor man yi ma ciy liggéey. Hmm. pour ma wax la rek. Hmm. yi ma ciy liggéey tey. saa ba mu ne ko defaree demal fu la neex defal ku la neex da ngay të képp ku musiba dana ñëw ba si tax jéggalu wala mu faatu sa kanam. macha allah ak foo mënti nekk. macha allah même bu fekkee da nekk réew yoo xam ne. dañuy yor ay bal fetal. ñi nga xam ne ñu ngi Amérique ñu ngi ba dëkk bi ñuy wax Baltimore. nga xam ne moo gën a danger si Amérique. ba ñu ba ñu nekk Sarakossa. Mhm. ba ñu nekk Madrid. Mhm. ñooñu ñëpp. Mhm. ba ñu nekk ba Alaska ca euh, Canada. sa côté Suisse. nga xam ne moo gën a sedd ci ci ci monde bi booy xool. ci Europe yi Europe yi. dañu liggéeyal yoo xam ne tey. lu nit saay saay saay saay lu nit mën a yàq mën a yàq du mën si yow dara. macha allah loolu. maa ngi sooy jàllale di leen ko wax. Hmm. ñëpp euh, macha allah Cheikh Moussa Ka mën naa ni kaaraange nekk na mbir bu ama ama am solo si doomu aadama dañuy ñëw nag si daj dëpp gi macha allah ñi nga xamante ne leen di dimbali muy Modou Modou. Mhm. résultat yu am solo yaa ngi jàppale ay Modou Modou yu bëri ak aussi Modou Modou yi nga xamante ne dem nañ ba bitim réew far préparé wuñ seen bopp dem nañ foofu di sonn di galérer euh, seen mbokk yaakaar si ñoom mënu ñoom liggéey bu stable mënu ñoom liggéey bu baax euh, ku la ñaanal sëñ bi ku ñëw si yow pour nga ñaanal ko noo koy jàppale waaw yaakaar yaakaar yaakaar dafa fort nga nekk ci famille. Mhm. nga nekk fa benn muy càppaacu lu ñu yaakaar la. wala sa yaay wala sa papa def lu ne ba nga tukki. Mhm. nga dem. Mhm. ni nga war a liggéey mënoo koo liggéey loolu dafa metti yaakaar mooy lépp ci kaw suuf. te nit ki nag boo génnee ñu yaakaaree la dara. nga nekk foofu yow tamit nekk si ay yeneen jafe-jafe te waajaloo sa bopp. loolu beneen beneen coono la beneen erreur la. moo tax ñi nga xam ne dañoo génn wala ñu tukki. Mhm. wala ñu nekk foofu te amuñu yenn liggéey. Mhm. Euh, dafa am secret yoo xam ne ak fu leen di jaar. Mhm. dëkk hmm? waa waaw dëkk rawaanu dëkk mooy neex si yow ndax nga mën fa am terrain. dëgg la. moo tax ñuy dem Italie waaye bu mu la xoolee. ñii nekk si bis bëgg dem Canada. demee mënoo ko am. Hmm. am na ñoo xam ne Amérique la ñu nekk man na leen yéen boo demoon tey Canada. Hmm. Amérique nga jóge Amérique dem Canada tey li nga fa. Hmm. Amérique. allahu ñi nga xam ne dañ leen di yàq. ne kooku am nañ ci njàppale yoo xam ne. dañ jàppale wutal la buntu bu gaaw. liggéey la liggéey boo xam ne. dañ koy liggéey ci li ñuy wax xalbul xuraan. mooy li ñuy wax yaasin. am xol. nga xam nga ne yaasin mooy xolu lépp loo gis. mooy xolu alxuraan. dañu si liggéey ba nga xam ne dëkk bi lépp lu ci teraanga dana daw wutal si la. même bu fekkee da nga fa nekk ak nasaraan boo xam ne multi milliardaire la wala millionnaire la. wala jëriñ li ñu war a dem ba nga xam ne. am kenn xamul lu mu toll dana la jublu. wala sax nga nekk ak patron boo xam ne day leer liggéey bi ngay liggéey war na laa wutal fu ko a kawe. Mhm. dañ la si liggéey liggéey yoo xam ne tey saa boo nekkee si dëkk da koy am liggéey. Mhm. Mhm. da nga fay ubbi ci lu wér ci lu gaaw. kon ñi nga xam ne dañoo tukki dafa nekk si réew yi nasaraan yi. dafa am lu ñu leen di liggéey lu ñuy wax tàggatu dëkk. nit ni nga koy noobee ba mu topp la Moussa dëkk noonu nga koy noobee ba teraanga bi daw di wutsi loolu faaw nit ñi xam ko. nit ki li mm-hmm. ngay noobee nit ba mu bëgg la mm-hmm. ba mu am sew cofeel dëkk noonu nga koy noobee ba teraange bi ak dëkk bi wut si la mm-hmm. loolu faaw faaw nit ñi xam ko faaw ñu tukki xam ko bu baax a baax a baax. macha allah am na solo euh, macha allah Cheikh Moussa Ka kàddu gi am na solo bu baax a baax baax a baax daanaka nag waxtu bi léegi mu jeex mais duñ tàgg mukk sans pour autant ñu waxtaan si li nga xamante ne macha allah yaa ngi si am résultat yu am solo muy wàllum nopp Cheikh Moussa ñëwul ma si wàllum nopp. Mm-hmm. waaw Cheikh Moussa noob mm-hmm. dafa nekk loo xam ne euh, mënul ñàkk da ngay nekk ak nit nga bëgg ko mu bëgg la lool ngeen xëy suba mm-hmm. doo xam lu yàq seen diggante am nga nekk ak sa patron mu lay fay ay millions nga xëy suba ñuy tàqale seen diggante loolu wàllu noob da ciy dox nga xam ne ci liggéey waaye tey bu nit ki ñëwoon tey ci ngoon ñu liggéeyal ko ko. Mhm. balaa jant so mën naa la demal nga woo nga maanaam balaa jant so naa la demal nga xooli ka nga xam ne moom nga bëggoon di ngeen nekkaat ci nu mu gën a gaawee. Mhm. waaw. Mhm. dañ siy liggéey liggéey bu gaaw. liggéey boo xam ne am na secret bu ñu koy jaarale nga xam ne tey boo ko liggéeyee balaa jant so balaa jant so nga gis résultat ci saa si. suñu maanaam di nga koo xam ne nag mënul nobbal xam ko day jafe moom day jafe lool ci moom. Mm-hmm. Cheikh musaa gis nga tey bu nit toogoon sa. Mm-hmm. dëgg la da jooy. maanaam da lay sonal. Mm-hmm. te pourtant am na secret bu gën a gaaw ci loolu nga xam ne tey boo ko doon liggéey nit ki fi mu toog lay toog. xelam ak xolam yëpp di nekk ci ki mu bëgg ci lu gën a si lu mu gën a gaawee. allahu akbar. Hmm? xelam ak xolam di nekk ci ci nu mu gën a gaawee. moo tax am na secret yoo xam ne sax Sëñ Moussa ñun dañ koy liggéey boo koy di wérd wala nga koy def. Mhm. tey boo toogee ba saag sa xel dem ci nit fekk mu ngi dund. Mhm. balaa jant so di ko gis. macha allah. wala nit nekk dëkk yu sori sori sori. Mhm. boo nekkee di wax si ñoom. wala ngay gis ñoom ñoom dinañ yëg dañ xam ne diw ak diw mooy wax ci man. allahu akbar loolu moo tax xam-xam dafa dafa xam-xamu noob dafa yéeme. moom nga ñuy liggéeyal diggante nit ku xam ne dalaa bëgg wala nga am sa ku góor ko xam ne dalaa dig takk. Mhm. comme jigéen ñi tey seen yaakaar ni muy tasee. bëri na. Mhm. moo tax ma ne la noob dëgg-dëgg boo ko amee wàllu rab yi sax dalay daw. te yàlla. Mhm. boo ko amee say sa diggante ki nga bëgg. même bu fekkoon rab bu la yàqal day dañ. parce que noob bu ànd ak kaaraange la. dina la bëgg. am sew cofeel ba nga xam ne foo mënti nekk ak fu mënti nekk sa xol ci moom lay nekk. macha allah kon ñi nga xam ne dañoo nekk. si relation. te ragal ki nga nekkal nga am ci moom yaakaar ragal mu war la moo xam góor la moo xam jigéen la hmm. ma ci kàttanu yàlla dinaa la dimbali incha allahu rabbi hmm. ñi nga xam ne tamit dañoo nekk ak dañoo nekk ak Europe nekk ak hmm. foofu seen patron jigéen wala sa koo mën a takk ba ne ba Japon ba nga xam ne ñi nga xam ne dañuy dem Chine di fi jënd ay matériel mhm. jënd ay yére nga xam ne dañu am patron yoo xam ne dañuy bëgg neexook ñoom mhm. ñu leen di jox matériel lu mën a neexee commerçant mhm. yooyu ñu nekk marché aslem marché ci leen ba kolobaan insha allahu rabbi dinañ la see liggéey loo xam ne ni ngay xëyee suba nit ñi nekk ci marché di ko wër ku dégg bëccëg noonu lañ lay wëree kon loolu moo gën a gaaw ci nopp loolu moo gën a gaaw ci nopp macha allah euh, macha allah Cheikh Moussa kàddu gi am na solo bu baax a baax a baax a baax euh, xam naa rek dañuy ñëw nag jàll suñu question d'actualité am na question bi nga xamante ne nag bëggoon naa la ko poser loolu mhm. mais daanaka sénégalais ñëpp xam xamee nañ la ko mhm. muy wàllum seet ak joxe sarax mhm. macha allah loolu loolu moom fa laa waroon tàmbalee sax waaw ñàkk parce que si lañu waroon tàmbalee waaye dafa nekk loo xam ne léegi daanaka adduna bépp xam nañu si dëgg la xam nga ku taxaw naan la. Mhm. wool ma ab woo ma appel vidéo direct ma xoolal la. Mhm. ngay gis lépp lu la jaaxaloon. Mhm. daanaka bëriwul ñu koy def. gis nga man façon seet bi may seetal nit bokk ak yi ma gis nii ñi di ko seetee. parce que man seet li ma ci xam mooy wax nit ki fi muy teg tànkam. wax ko fi ngay jaar ci sa sa sa sa avenir. wax ko li nekk ci yow ni mu lay sonal te xamoo lan la. nan hmm. ngay def ba dem man loolu def naa loolu moo gën a gaaw ci seet te man noonu laay liggéeyee. la waaye du da ngay seetal nit ko gën a riiral. Hmm. xam nga ku ne mu ngi ànd ak ku xonq wala ku ñuul. Hmm. ku ne mu ngi ànd ak ay ñu ko bañ. loolu am na. kooku koo seetal kon ñëpp am nañu ay bañ. segam yeneen yi ñoo amul ay bañ. ñëpp am nañ ko. xoolal bi ngay xoolal ni mooy wax ko fi muy teg tànkam ni muy def. ba di am ay jafe ba du am ay jafe-jafe mm-hmm. am na ko xam ne dama ko xoolal man ko seen bërëb liggéeykaay bi dinañ la fa wàññi mm-hmm. te mënu te bërëb liggéey mënu ma sama place bi nga xam ne niñ ma fa bëggee ak niñ ma ma ne ko wallaahi dinañ leen wàññi ñu mm-hmm. tax nag ma ne ko seet bi ma la doon seetal bokk teg ñeneen man dama lay wax ni ngay def préparer sa bopp di nga fa génn am feneen te bu ñëwee di wàññi liste bi dañ see boole turam mu woo ma ne ma sëñ bi wallaahi li nga am na wàññi nañ ma ma ne ko mu ngi noonu loolu moo lay wax fi ngay teg sa tànk tey am na xaalis bu mu yor bëggoon ko faa def bu ko fa defoon day perte. Mhm. mu sant yàlla loolu si saati la yëkkati xaalis yónnee ma ni ma liggéeyal ma ma jël su yi ma yor ak yi may liggéey tàmbali. Mhm. loolu mooy li nga xam ne moo gën a gaaw. Mhm. man seet bi may seet dama lay wax fan ngay teg sa tànk yi nekk si yow nan ngay def ba mu deñ. beneen bi sa wàllu avenir. bu fekkee njàng mii danga nga ci am tawféex bu fekkee formation bii. bu fekkee sa wàllu tukki bii. bu fekkee sax dafa am ñu la liggéey nga xam ne yéen a bokk ndeeg baay wala sa papa la wala sa yaay la wala sa jëkkër dama la koy wax nga def li ngay def yëpp dañ bu fekkee tamit nga xam ne dafa bëgg a seetlu xam lépp lu nekk ci moom lépp lu nekk ci yaramam ak lan lay mooy avenir lan la si lan la war a mën a réussir dañ la koy wax macha allah loolu mooy waral ba nga xam ne dinaa seetal nit ki ñëw defal ko tey mu ñëw tey ma liggéeyal ko liggéey boo xam ne tey dama naa la beleen na luy dox ci kaw suuf mënatul caw dara. allahu akbar. kon Cheikh Moussa gis nga mm-hmm. wàllu seet. Mm-hmm. dafa nekk loo xam dafa sensible te léegi koo gis. da ngay gis benn jigéen boo xam ne sax war xale bu jigéen boo xam ne dafa toll ci wala yor ñetti pettaawam ne day seet. dëgg la dëgg la mm-hmm. am na solo mm, léegi moo tax man façon seet bi may seet Cheikh musa moo lay wax fan ngay teg sa tànk. sa wàllu avenir. sa wàllu njàng mi sa wàllu jaay mi sa wàllu liggéey bi. nan ngay def ba génn si. fan ngay jaar ba dem. yan sarax ngay def yan sarax ngay def. Mm-hmm. surtout seetlu sarax. Mm-hmm. dafa am solo. Mm-hmm. naa la wax tey loo xam ne Cheikh Moussa fii rek nga koy déggee mosoo ko dégg ci sëriñ. xam nga ne tey bu nit géntee lu metti bu nit géntee lu ko tiital comme ñu koy jàmpaaka wala ñu koy dàq wala mu dugg si teen. boo xëyee suba dafa anam loo war a saraxe. Hmm? loo war a saraxe li nga war a saraxe mooy da wut loo xam ne tey boo ko joxoon tey nit tey tey tey. da koy lekk benn miisu mburu wala benn mbuus soow wala benn loo xam tey boo ko joxoon ni da koy lekk mu jeex ci saa si sa mbir moom noonu lay naasaaye waaye ku ci gént lu raglu dem génnee yére wala xaalis nga saraxe ko sa problème yooyu ak sa xat-xat yi ni ñu circulé sa mbir yi noonu la ñu circulé allahu akbar loolu faaw nit ak ku mënti doon am na solo de waaw dafa am loolu nit dafa war a xam sarax gis nga képp ku ci nekk si ay jafe-jafe dem di saraxe man lu mel ne wàllu yére wàllu wàllu xaalis loolu ni muy circulé yow say xat-xat ak say mhm. jafe-jafe noonu lay circuler mhm. kon loolu faaw nit ñi xam ko mhm. sarax seex Moussa nit ki da ko war a xam xam fan ngay jaar gis nga nit dana tëj boppam sax fekk dafa dégg si tiktok bi wala nit ne ko génn saraxel nangam rek mu dem saraxe ko loolu lu la gis nga tiktok bi xeetu xam-xam yi ci nekk xam-xam yoo xam ne la mu ngi mel ne ngay ñaw pusi bi takkoo ci ginnaaw boo xëccee lépp lay topp kon loolu faaw nit ñi bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a baax. sarax musa musa dafa nekk lu dangereux. du nit ki lu mu jekku saraxe ko. surtout wàllu jigéen ñi nga xam ne dañoo am rab am na ñoo xam seen rab bu gul xonq wala soow. am na ñoo xam ne bu ñu xëyoon suba tey saraxe sox boo moytuwul balaa jant sox dinañ xuloo si àll bépp wala seen xol day tàng. allahu akbar macha allah am na solo. macha allah euh, macha allah Cheikh Moussa Ka waxtaan bi am na solo loolu kàddu gi am na solo loolu sax xam naa rek duñu def lu dul nag jublu nag si question d' actualité avant ñuy tàggatoo euh, am nañ président bu bees macha allah boobu léegi dafa mel ni euh, jëlaguñ la woon. na nga gisee président Diomaye fay ak ki ñuy wax Ousmane Sonko jamono ji mën naa ne sénégalais yu bëri ñu ngi am xel ñaar naan est ce que ñoom ñaar duñu xuloo du ñoom tàkkali ko. waaw hmm. Cheikh Moussa. Hmm. loolu tamit lu am solo la parce que. wax deug yàlla sénégalais yi gàcce ngaalaama parce que liggé nañ ci lo xamné Sénégal amna benen xol way amna benen beut bët. waaye tamit lépp lo gis ci ndorte bi. nga koy nga koy gagné euh iza iza urida an tanjah fala budda fi ibtidai umurika an an an taj an tajtanib jami ma ma ma yubtil amaluka bo nekké ci mbir bëgg arrivé bi nga am ci lula neex ci ndorte bi ngay rayenté لولا عربي واخ تدن نوال حزمو سيف ليس ينلو مدبا ومتي أدن أبدا بريختك المقتدي وأنا أقول في أنه مصداق اللسان وإنما خول بلا عمل هو ذات المزندي نيت كي نك ملول نيم واخي نيم جيفي لك لا مل عثمان سونكو بروجي لا نيو ديك بروجي لا نيو تيغالون تي نيغي دوخال ndorte bi fi mu jaar fi mu teg tànkam yëpp macha allah. parce que mm-hmm. nit ki balaa ngaa njëkkee lu la sori lu la jege ba pare. Mm-hmm. gis nañ sax génn bi mu génn dem ziyaare kilifa yi loolu lu baax la. Mm-hmm. liñ koy ñaanal rek yàlla defal ko réussir. ak tamit naal yi muy naa yi naal yi mu naal maanaam ak accord yi nga xam ne war na koo signé. ñu xool ko bu baax parce que ndoorte mooy lépp. ndoorte nguur mooy lépp loo ci perte si mujjantal bi nga koy xam. kon ñoom. dañu war a seetu rek si ki fi jaaroon. Uh-huh. buñ ci seetoo rek duñ juum. Uh-huh. waaw te gis nga wax ji dana bëri lool ci diggante président Diomaye ak Ous ak premier ministre Ousmane Sonko. Uh-huh. waaye gisuma ñoo gisuma loo xam ne war na leen mën a tàqale ci loo xam ne du caaxaan. mais coow dina bëri. coow waaw coow moom dana bëri dëgg. jëf dëgg dëgg dëgg wala yàq dëgg dëgg dëgg moo leen mën a boole. allahu akbar. waaye nag. maanaam ñi nga xam ne ñooy patriotes yi ñi nga xam ne ñoo topp Ousmane Sonko dañoo xaaj ñetti xaaj. Mhm. ñii président bi rek la ñuy topp. Mhm. ñii ba tey ñu ngi des ci Ousmane Sonko waaye ñeneen ñi dinañ jugaat ci ginnaaw pour opposé wu seen biir. yi xaaj yooyu noonu. ñii nee naa président rek la ñuy topp. Mhm. ñii premier ministre Ousmane Sonko waaye dafa am ñoo xam ne dañ dinañ génnaat ci biir ñi doon xeex lii. nekkaat beneen pàcc seen biir di xeex. parce que am na xam liñ liñ bëgg ba léegi duñ ko mën a am. kon loolu faaw ñu. li ñu yaakaar dara mun leen opposé li leen di li leen di liy indi coow ci seen biir lay génne li ma lay wax nag nañ ko bind ñu bàyyi xel bu baax a baax. bëggee mucc. lépp lu muy signé na ko xool. lépp lu muy ndoorte ci mbir mi ne ko xool. am na solo macha parce que boo daanoo ci ndoorte mujj ga dangay am jafe-jafe. Mm-hmm. li yàq seen diggante nag coow dana bëri lool lool lool lool. da nga hmm. gis sax ay accords yoo xam ne dañ ko signé ñu jóge ci bitim réew pour rek jaxase. Hmm. waa yooyu yëpp dafa nekk yoo xam ne bu fekkee ndorte bi. Hmm. xool nañ ko ba jaaral ko si yoon. maanaam mujjantil bi mu ñoom mën nañu am mujj gu rafet. mën nañu am tamit projet bu réussir. loolu tamit faaw ñu xam ko. macha allah am na solo am na solo bu baax a baax a baax Cheikh Moussa Ka ak beneen actualité am na nag muy ki ñuy wax Papa Boy Djiné ak Ndeye Gueye jamono ji gis nañ ci net bi ñu ngi génn di wax am na benn sëriñ boo xamante ne nañ moo yàq Papa boo Djiné noo gisee mbir boobu. Mm-hmm. waaw Cheikh Moussa. Mm-hmm. Euh, gis nga. yàq mm-hmm. xam nga ne Moussa yàq moo gën a gaaw defar. yàq moo gën a gaaw foofu defar. papa nit ki. boo juumee ñetti yoon da war a taxaw xoolaat sa bopp. Mhm. papa defe naa ne bi mu amee bi mu tegalee ñetti defet ci la waroon taxaw. Mhm. defaat lu toll trois ans xoolaat boppam doog a ñëwaat xale la demagul fenn. Mhm. ba léegi mën na bokk ci làmb. bu mës a bokk ci làmb waaye nañ xam leen Moussa gis nga lu mënti am. lu ñaan gaaw gaaw lu nit mën a ñaan suñu borom mooy dogal. dëgg waaye suñu borom lu mu dogal dafa am fu mu koy jaarale. Hmm. lépp loo gis dafa am cause gis nga daanoom bii muy daanu boo ko boo ko toppee ba ci biir am na lu. Hmm? xam nga Moussa Cheikh dafa am garab yoo xam ne ñu ngi nekk ci digg àll. Hmm. wala lay doon. boo ko liggéey turu nit ki euh, takk ko ci mu diree ko. kooku lépp lu mu dugg même bu yoroon bitig day daanu. allahu akbar. loolu ñeneen ñoo xam ne lépp luñ dugg day yàq. kon dañ koo liggéey daal. parce que boo xoolee boo xoolee ni muy daanoo nga xam ne kii am na lu nekk ci moom. dëgg euh, li ma koy wax rek man sax xam naa ne incha allah rabbi dinaa def le tout pour gis ko. am loo xam ne dinaa ko ci wax lu am solo. jàppale jëkkëram la. encouragé. même Ndeye ne xalaat sallallahu alayhi wa sallam bi jëkkëram di nekk si ay jafe-jafe. bu mu mhm. bàyyi mukk. ku am ngor la. Mhm. parce que am ngor mooy nga nekk ak nit mu nekk ay jafe-jafe nga gën a jàpp. Mhm. yii nii bu mu ko tax mukk mu découragé. mu découragé mu maanaam mu découragé. parce que arabe yi dañ naan annaasu yatakallamuuna hatta alal mawt fi xabri nit ñi dañuy wax ba nit ku nekk si bàmmeelam sax. nit ñi dañuy nekk si moom di wax. yàq dëgg dëgg dëgg dëgg moo nekk ci moom. dëgg la. moo tax. bu mu mhm. jeexagul aduna yàllaa ko moom. Mhm. bu rek. wala xëy suba am ay milti milliards rek nga ne alal jeex na yàlla yor na loo xam ne mayeeku ko. Mhm. koo xam ne nit ki day am may wala nit ki day am jafe-jafe mu lay déranger. yow dese nga am tawhid. suñu borom li mu yor yaatu na yaatu boo xam ne. lépp di góor mhm. da gën a nekkaat ci boppam mhm. saytuwaat nag wut gàllaaj yu wér def ko ci boppam mhm. waaw am na solo léegi na gën a góorgóorlu ci borom gën gën ko téye te wax jii nii bu mu ko tax a wàcc bu mu ko tax a yéeg macha fa mu nekkoon ba lii amul na nekkaat foofu bu fa nekkaatee rek dina am macha allah euh, macha allah Cheikh Moussa Ka kàddu gi am na solo bu baax a baax a baax a baax Cheikh Moussa duñ def lu nag bàyyi la nga tàggoog mbokk internet yi la doon seetaan waaw li ñuy tàggoo rek Cheikh Moussa di julli senente bi di sant yàlla di sant sama sëriñ sëñ Adama Salaam moom sañ Assane Salaam bu njaareem maa koy ñaanal yàlla fi yàgg lool te wér mm-hmm. di leen sant bu baax di ñaanal sénégalais rek yàlla na leen yàlla defal jàmm ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew mm-hmm. ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew maa leen di ñaanal bu baax di mm-hmm. kontaan bu baax ci set bi ngeen ñu set si incha allahu rabbi ci fan yu néew dinañ ñëwaat ak yéen ci yeneen waxtaan yoo xam ne waxtaanu xam-xam nit koo xam ne. Mhm. boo bëggee am yoon bu gaaw. Mhm. bëgg tamit nit koo xam ne da ngay të. Mhm. lépp loo bëgg nga am ko ci àdduna te nit du la mën a dara ci kaw suuf. dinañ si dikkaat ak yéen incha allah rabbi ci beneen émission ci kàttan ci loolu la ñuy waxtaanee kon nañu ñëpp xaar ci Galsen People. ñu ngi sant bu baax a baax a baax di leen gërëm bu baax a baax jërëjëf. jërë ngeen jëf.